Tek le représentant du maire de la commune de chef de village imam représentant au médecin chef du district de Mekhe collègues et sœur madame Diop les deux madame Diop sax va. témoignage je parce que yow sama content. di di leen wax ni tey man maa ngi jël sama kàddu jëlee ko ci turu amicalu sage-femme du district sanitaire de Mekhe ma jóge ba Pekes nekk foofu sage-femme d'État ñu may woowee Absa Touré madame Mbaye ma nekk présidente des sages-femmes du district sanitaire de Mekhe kon may wax ci seen tur di wax ni ñoom ci seen bopp ñi ngi kontaan ci yéen gis ni liggéey bi comme dañu yéex a commencé te nit ñi bari nañ fi moom moo tax ñenn ñi nekk ci salle bi commencé liggéey bi ñun ñu ñëw fii toog pour ñu teewandoo waxtaan bi léegi suñu waxee octobre rose nag xelu ñëpp day dem ci cancer muy canceru buntu buti su njurkaay ak canceru ween bi nga xam ne moom moo ëpp lu muy faagaagal ci jigéen ñi amicale bi nga xam ne ci lañ jokk muy amicale nationale des sages-femmes d'État du Sénégal dañoo am slogan buñ génne ci octobre rose bi mooy zéro femme zéro cancer maanaam bëggatuñoo gis benn jigéen boo xam ne cancer daf koy faagaagal bëggatuñoo gis benn jigéen benn jigéen boo xam ne mook doomam cancer daf leen di tàqale kon slogan boobu ñun ci lañ nekk léegi nag suñu déplacé woo tànn commune bi nga xam ne moom mooy commune Thilmakha dañoo am yaakaar ci population mais am yaakaar ci ICP bi fi nekk xam ne moom mooy madam Diop mu accueillir ñu à bras ouvert mu nekk noo fee suñu collègue sage-femme muy madame Diop beneen bi kon ñoom ñu nekk les deux madame Diop au carré yaakaar naa bu buñ jàppoo rek affaire yi dafay dafay neex léegi cancer bii nga xam ne nag moom moo moo ëpp lu muy faagaat jël jigéen ñi muy cancer bi nga xam ne moom mooy canceru ween

ñu ne cancer bi nga xam ne moom mooy bu moom mooy butu butu butu duy kaay moom tam dafa bari te li nga xam ne ñun moom moo ci ciy génne ñun mag ñi cancer dépistage rek lañ mën a def ndax mënuñoo vacciné wu. xale yi nga xam ñoom ñoo am 9 ans ba 14 ans seen chance mooy ñoo ngi vacciné wu mën na leen a bañ a dal mais ñun ñi nga xam dépassé nañ foofu fi mu ne nii dépistage rek lañ mën a def looloo tax ñuy ñaax jigéen ñëpp que ni dépistage octobre rose yëpp dañ ko jagleel di xool jigéen ñi. ci cancer buntu butitu njurukaay ak cancer ween fu ñu ko dégg loo xam ne danga cee war na fay ay junni junni bu nit ñi déplacé woo ñëw ba fii di leen ko may man yaakaar naa loolu ngëneel la cër la buñ leen jox parce que benn commune nekkul fii ci région de Thiès bi mais tànn nañ leen ci tànn nañ leen ci parce que seen ICP comme ni nga ko waxee jël na ci engagement bu mag sonn ci fu mu toll fuñ nee ñoo ngi planifié nee na boole leen ci cilmax léegi bu loolu amee nag yàlla def ngeen am chance ñu tànn leen ngeen def mobilisation bii ngeen xam ne moom ngeen def yéen itam dañ leen di jaajëfal mais wax leen daal di leen cancer moom mi ngi faagaagal jigéen ñu bëri te ñun ñi nga xam ñooy sage-femme yi bu ñu sañoon ndeetal yaay ak doom moom dafay jóg ba looloo tax sax ñu jël planification familiale dugal ko ci journée yi

te yéen ñii ngeen xam ne yéen yéen ay mag ñi heure boo leen déggee dépistage ngeen dem ci dépis dépisté wu. parce que nag li comme li ko olof di waxee fagaru moo gën faju te cancer nekk na loo xam ne suñ ko teelee gis yow mën nañ ko traité ba du la yóbbu fenn mais buñ ko yeexee gis mën na indi yeneen complication ñu di leen rappeler tamit que ni ñoo ngi koy def dépistage bi tey ñaanu yàlla buñ sañoon duñ fi am benn cas. mais cas buñ fi am ñoo ngi koy jox rendez-vous centre de santé dina fa ñëw mammographie wala rajo bu mu war a def incha allah dina ko def te du ci fay dara kon octobre rose ku ko tudd tudd cancer te cancer feebar boo xam mi ngi faagaar ga jigéen yu bëri la te ñun bëggatuñoo gis loolu kon jàppale leen ñu jàppale leen ngeen ñëw di dépisté wu prise en charge bi nekk gratuite incha allah ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah